mbokk yi kon incha allah ñu ngi war a jël ay juróom fukk ak benn ci suuratu ruum wala in arsalna riixan fa ra'awhu musfarra alhamdulilahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نجي سنتات سني بروم سبحانه وتعالى ci wërsëgal gim ñu wërsëgal ñu daje ci ab néegam di fas yéene jàng ab téeréem tey jii moom mooy fukki fan ak juróom ci jumaadal ula sunu maam yi di ko tuddee rakkaatu gàmmo mu tàmbeeg le 30 décembre ci 2020 incha allah kon comme niñ ko waxee ñu ngi war a dal juróom fukkeelu aaya ak benn ci li nga xam ne mooy suuratu Ruum su dee Cheikh Ousmane pare na barakallahu fikum a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim suñu boroom jalla wa ala mu ni wala in arsalna riixan su dee day dañoo yónni benn ngelaw fa ra'awhu musfarra ñu gis ñu gis la nga xam ne mooy seen tool ba seen meññeet ma nekk lépp loo xam ni lu ñu joonal la mu lax la zallu min baadihi yakfuruun kon day daañu sax gannaaw loolu doon aji weddi fa innaka la tusmi'u lmawta yow day doo déggloo aji deeya wala tusmi'u summa du'aa ida wallaw mudbirin doo déggloo it la nga xamee ni ni mooy tëx ba la woote ba nga koy woo su dee ne dañoo dëddu wone gannaaw ay tëx doo leen déggloo mukk wa ma anta bi haadi al umyi an dalalatihim doo mën a jubalit la ña nga xam ne dañoo silmaxa ci la nga xam ne muy réer ga ñu nekk in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina yow day doo déggal lu dul koo xam ne daa gëm suñuy aaya fa hum muslimuun te ñoom ñu nekk ñuy jébbalul seen boroom allahu lazi xalaqakum min daaf yàlla moo leen bind ci lompañ summa jaala min baadi dafin quwa gannaaw bu mu def gannaaw lompoñ googee lool di kattan summa jaala min baadi quwatin dafan wa shayba daa di def gannaaw kattan googee lii di lompañ akug màgget yaxluqu ma yacha mooy bind lu mu soob lu ko soob bind wa huwa alalimu alqadir ca mooy aji ki xam lépp aji ka am kattan ci lépp mi ngi noonu bokk bi ñu fi mujjee daje suñu boroom mi ngi ñu doon wax xéewal gi muy defal doomu aadama yi ci yónni ay ngelaw muy ay riyaax ngelaw yooyu yëkkati ay xiin mu génne ca taw taw ba génne meññeent loolu di xéewalug borom bi jalla wa ala borom boobu nag nim bëggee jaam yi sant ay xéewalam noonu la bëggee jaam yi muñ ay nattawam waaye li ëpp ci doomu aadama yi heure bu nattu yàlla ñëwee ñu saalit dellu gannaaw moo tax borom bi ne su dee dama leen a nattu te defu ko lu dul ngir seeni bakkaar indi benn ngelaw riix lu bari fu ko alxuraan di waxe rek day indi la nga xam ne moom mooy ay musiba mi ngi noonu riixan sarsara amma riyaax fu ko alxuraan waxe rek ay xéewal lay indi mu ne su ma indee ngelaw muy ngelawu jaas nga xam ne day ñëw wowal àll bi koŋ lépp jaune gannaaw ba nga xamee ne ni lépp vertoon lépp naatoon ami fleur léegi lépp nga wow jaune da ngay gis lu ëpp ci nit ñi dañuy sax di weddi seen boroom mi ngi noonu di wax ju ñaaw ju ne ñu wax ko amma bu doon julit julit moom heure bu xéewal ñëwee day sant yàlla heure bu nattu ñëwee mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xam ne jaamu yàlla la ci yàlla lay dellu ñaan yàlla nattu boobee yàlla defal ko ko ak yiw comme naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale kenn du am nattu mu dellu ci yàlla ne yàlla maa ngi yaakaar fay sama nattu bi yàlla nag ma ci bindal tuyaaba ca wuutal ma lu ko gën lu dul yàlla bindal ko tuyaaba wuutal ko lu ko gën looloo tax julit moom léppam yiw la ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu xayr ni muy amee yiw ci xéewali noonu lay amee yiw ci nattu yi amma nag bu dee ni koo xam ne nii dafa gëmul yàlla moom la borom bi di wax naan xasira dunya wal axira adduna yàqu na mu bale ko kéefér borom bi nag di dalal xoolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aaya yi ma nga wàcc ca makka yonent baa ngi sax di woote quatre-vingt-dix pour cent ci xeetam kenn gëmu ko loolee nag man ngaa dem bay xalaat xanaa man maa amul pédagogie wala lu mën a doon borom bi na ko déedéet ni nga xamee ne boo demoon ca armeel ya ee yéen waa armeel yi jóg leen ngeen def nangam nangam kenn du la wuyu am na ci it ñoo xam ne seeni xol dafa dee mi ngi noonu ni nga xamee ni it ab tëx bu la wanee gannaaw soo te ba ci gannaaw naan ko héey héey du la mën a wuyu am na ci ñoo xam ne seeni xol daa tëx ni nga xamee ni it silmaxa soo taxawoon ci kanamam di ko liyaar ba suba jotit du mën a gis am na ñoo xam ne seeni xol daa gumba am na borom bi di wax naan innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur kon yow aji waaraate leen moo la war sa devoir rek def ko amma nag kuy gëm ak ku dul gëm kuy topp ak ku dul topp loolu yàlla sant la ko loolu yàlla sant la ko borom boobu subhanahu wa taala nag ne ko ki nga mën a waar day mu dégg mooy ñi gëm suñuy aaya ba pare jébbalul yàlla ca bokk jullit mooy muslim mooy ki jébbalul yàlla loolu moo tax aaya yi borom bi bu ko déggee rek topp ko xelam nangu na ko xelam ñàkk ko nangu la muy digle neex na ko la muy digle neexu ko waaye maadaama lii mooy ndigalu yàlla bàyyi rek chronique nga ci naan sàngara ñu ne la daa xaraam keroog ngay bàyyi intérêt bu dul jeex ci riba daa xaraam keroog ngay bàyyi yow jigéen daawoo muuru ñu ne la génn sànq ñàkk muuru lu xaraam la keroog nga koy bàyyi lu tax mooy yow muslim nga da ngaa jébbalul sa borom jalla wa ala ñooñu ñoo gëm aaye borom bi borom boobu nag di wone kattan gi mu am ci ay jaamam ca ki xellu rek da ko war a nangul ndax bu ko sa xol bi nangulul it sa jëmm ji moom nangul na ko suñu borom subhanahu wa taala mu ne lahu man fi samawati wal ard kullun lahu qanitun jàng nañ ko ci dars yi passé ñépp a ko nangul preuve ba mooy lan mooy yàlla mooy ñu bind ñun ñépp moo ñu bind jëlee ñu ci neen à partir de zéro doomu aadama hal ata ala al insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura yow yaa ngi juddi 1980 1970 foo nekkoon dara amul benn trace yàlla bind la suñu borom bi mu lay bind mi ngi lay commencé ci lompañ doomu aadama commencé berceau bi nga juddoo buñ la fa bàyyi woon foofu ngay faatoo jeex na foofu ngay faatoo donte ne ni suñu borom yàlla mooy dogal lu ko neex continuer di la may puissance nank-nank nank-nank ngay dem di dem di dem ba mujj nga yegg ci doon mbërum làmb ñu ngi noonu am nga vingt cinq ans trente ans yaa ngi jëm ci sa digg doole loolee mën nga ci nekk ba quarante ans gannaaw quarante ans nag borom bi commencé nag di di di wàññi lim la mayoon ba da ngay dégg ñu naan mbër sàngam ah waaye kooku am na plus de quarante ans kooku ñu dem noppalu ci suñu borom yàlla di wàññi di wàññi ba doomu aadama na nga commencé woon ba nga juddoo toog ca kaw lal ba lu ñuy def dañ la ko fay fekkee soo demee ba romb téeméeri at jeex na léegi lal ngay delluwaat liggéeyatoo dematoo fenn nit ñi kay léegi ñoo la yor loolu mooy daaf gannaaw ba doon ak màgget borom boobu nag ne kon moom mooy bind lu ko neex kon moom moom kattan gi yow dala koy abal rek ab diir loolu daañ la ko laaj yowmal qiyaama yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne na yowmal qiyaama ku nekk daañ la laaj an shababihi sa ndaw gi daañ la ko laaj laaj di dund bi ci loo ko ràppal loolu it ku nekk ci ñun war a caa bàyyi xel quwa boobu yàlla wax dafay nekk ci xel mi nekk ci yaram bi yépp looloo tax yow ndawal julit xamal ne yaa ngi am quwa mooy mën a jàng lu bëree bëri loo xam ne tey jii moo dajale woon téeméeri mag yu am ku nekk quatre-vingts ans man nga leen bëgg a jàngal benn bind sonn ca lool mais bu dee xale du am problème d'ailleurs am na lu ñuy tuddee ay l'âge d'or nga xam ne xale bi diggante sept ans ba vingt cinq ans lu ne mën na ko këru lu ne mën na ko jàng loolee kon yow it ndaw da nga cee war a profité sa kattan gi ni muy jeexe sa xel mi it noonu lay noonu lay jeexe bari na fi ay mag yoo xam ne naan cey su ma kuuñ su ma delluwaatoon nekk ndaw tey ni jàng xam-xam yombe cey su ma delluwaatoon nekk ndaw loolee kon ku nekk ñun bàyyi ci xel borom boobu nag kon di wane ne xam-xam moom rek moo ko yor doomu aadama boo yàggee ci kaw suuf da ngay dem ba dootoo xam dara kattan yàlla rek ko moom doomu aadama boo yàggee ci kaw suuf da ngay dem ba dootoo man dara mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية
barakallahu fiikum suñu borom mu ne wa qaala la non wa yawma taqumu saa bis ba nga xam ne dana taxaw lii di waxtu bi su penc yuqsimu almujrimuuna maa labisu gayra saa dana waat def ko te bakkaar yu mag ya ne ñun day saxuñu woon ci kaw suuf lu dul benn heure kese kazalika kaanu yufakuun nii de lañ nekkoon di ko dëppoo di ko juutoo wa qaala allazina utul ilm nii day lay waxe ña jotoon xam-xam wal iman ak ngëm yàlla laqad labistum fi kitaabillahi ila yawmi albaas déedéet saxoon ngeen ci téereb yàlla bi ci dogalub yàlla bi ba baa lii nga xam ne mooy bisu dekk bi di ñëw fa haza yawmul ba's bisub dekk baa ngi nii nag walakinnakum kuntum la taalamuun waaye yéen kay yéen nekkoon xamu leen woon dara fa yawma idin la yanfau lazina zalamu maziratuhum bu keroogee dee du jëriñ dara ñi doon tooñ la nga xamee ne moom mooy seen layya wala hum yustatabuun te it kenn du leen jox occasion bu ñu mën a nekk di ko jéggaloo wa laqad darabna linnaasi fi hada alquran ñun dey dóoroon nañ nit ñi ci alquran ji min kulli masal ci bépp façon misaal wala in jitahum bi aaya doonte ne boo leen dikkaloon ci kawtéef ya ñuy sàkku ñoom la yaqulanna allazina kafaru dana sax di wax yéeféer yi in antum illa mubtiluun yéen nekku leen lu dul ay neenalkat rek te mooy ay njabarkat kazalika yatba'u allahu ala qulubi allazina la ya'lamuun nii day la yàlla di kaste ci xolu ña nga xam ne ñoom duñu xam fasbir muñal inna wa'da allahi xaq xamal ni dugub yàlla bi dëgg la wala yastaxifannaka allazina la yuqinuun bu mu la doy dal mukk ñi nga xam ne amuñu ngëm gu wóor mi ngi noonu mbokk suñu boroom dana dajale jaam yi yowmal qiyaama nit ak jinne ak lépp lu mu fay dajale dana wax yéeféer yi ak kàccoor yi ak naafiq ya lu taxoon jàng jaaruñu woon fa neex yàlla su ko defee ñu nekk di waat e yàlla ñun amuñu occasion bu ñu mën a jàng si diine bu ñu ko mën a xamee ñun àdduna benn heure dong lañ fa def amuñu occasion ci loolu gis ngeen borom bi subhanahu wa taala ne nii la ñu dëppoo woon ay nii ñu nekkee fen fen yu rëy yii ah bañ nekkee ci àdduna it nii la ñu wëlbatikoo woon yoonu dëgg bi ci noonu la leen tontu ña nga xam ne dañoo amoon xam-xam ak ngëm yàlla ca bàyyil xel li suñu borom wax utul ilma wal iman dañoo am xam-xam ak ngëm mokk ngëm xam-xam moo koy jiitu diine yàlla dañ koy jàng xam lu ñuy gëm ci yàlla lu ñuy gëm ci yeneen ci yàlla ak lu ñuy gëm ci keneen ku dul yàlla ak yeneen ci yàlla lii dañ koy jàng moo tax borom bi ne faalam annahu la ilaha illa allah soo demee ci sahihul bukhari day wax baabul ilm qabla al amal balaa kenn naan da ngay jëf wala da ngay gëm fokk nga jàng ba pare ilm wal iman ñu ne déedéet dundoon ngeen ci kaw suuf la yàlla dogaloon ngeen dund ko yéen am nañu dund juróom fukki at juróom-ñaar fukki at téeméeri at am na ci yéen ñu dundoon la nga xam ne moom mooy dix-huit ans wala vingt ans ca nga la waay yow julit xamal ne xale bi judd suñu borom du ko bindal benn bàkkaar benn bàkkaar ba baa muy majeur lu mu def ci tuyaaba ñu bindal ko ko majeur googu dana varié ci doomu aadama yi yonent bi alayhi salaam dana ndax ba baa muy gént wala boog ba baa karawam feeñ ca ay naqam su boobaa ñu ne majeur na am na race yoo xam ne 15 ans rek ñu majeur am na ñoo xam ne 18 ans ñu majeur waaye xamal ne boo xisee ba majeur léegi responsable nga sa digganteeg sa borom jël waala yàlla dana la laaj looloo tax wareef la ci bépp baay bépp wayjur galawaay boo amee doom nga jàngal ko diineem bu sa bay sàgganee ba jàngalu la diine ba ngay ne ximmi ci àdduna xamal ni la gën a am solo la gën a yey li nga war a jëkk a def mooy jàng sa diine saxoon ngeen ci téereb yàlla bi ba bisu dekki bi ñëw bisub dekki bi nag mi ngi nii waaye xamu leen woon lan moo leen indi woon ca kaw suuf te mbokk li borom bi naan walakinakum kuntum la taalamuun li ëpp ci doomu aadama yi xamuñu lu tax yàlla wàcc leen ci kaw suuf dañoo jàppoon ne yàlla da leen a wàcc pour ñu nekk des élèves des ingénieurs des médecins wala ñu nekk des maçons des menuisiers wala ñu nekk ay jéeg yu mën a togg wala ilaaxiri déedéet mbokk jullit suñu borom dañoo indi woon ngir ñu jaamu ko jaamu gën a mooy ñu jàng xam jëfe moo tax borom bi ne tey lay bu ngeen mën a am lay du am mi ngi noonu ca mooy yàlla joxoon nañu lay bam la bàyyeeg sa xel bàyyi la ba nga majeur amul benn ngant booy joxe bu yàlla di nangu bi su keroog mi ngi noonu borom boobu nag ne alxuraan jii de façon misaal bu ne dóor naa ko ci ba nit ñi xam ne waruñoo bokkaale ak seen borom misaal bi ñu jàng àllarba yi paase rek borom bi mu ne hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum ndax kenn ci yéen dana am jaamam jël jaam bi yemele ko boppam ci alalam ragal jaam bi du def lu dul loo xam ne ni jàmbale ca d'accord loolee ku ne xam ne amul waa naka ngeen di mën a d'accord ne nguuru yàlla gi yàlla am na ci koo xamee ne nii moom it day dogal comme ni yàlla di dogale mi ngi noonu façon misaal bu ne yàlla dóor na ko nee na waaw ndax kii nga xam ne benn kilifa rek la am ndax dana yem ak koo xam ne daa am fukki kilifa ak juróom rajulun fihi shurakaa'u mutashakisun ndax daañ yem tey déet kii nga xam ne dafay jël ah di diglu lu baax di tere lu bon ndax dana yem ak kii nga xam ne nii ah huwa kallun ala mawlaahu moom gumma tëx na xamul dara amul benn njëriñ façon misaal bu ne suñu borom mu ne dóor naa ko doonte ne ne ñoom lan lañ lay laaj mooy indi kawtéef kawtéef yañ tàmmu ñoom yañ tàmmu ñoom nga ne indil ñu ko waaye moo ne day suñu borom nee na bu doon dañoo ubbi asamaan ñu jàkkaarloog malaaka yi ajjana sawara kawtéef bu ñu laaj ñu génne ko it amul luñ cay tontu lu dul ay njabar kese la mi ngi noonu nahnu masxuruun ay njabar kese la borom boobu nag nee na nii lay kaste xolu ñi nga xam ne xamuñu mu daal di dellu ci yow julit bi ay waay julit bi fas biir la waay xamal ne mbokk li gën a am solo ci diine mooy muñ adduna gii léegi mu jeex dund adduna dafa gàtt dama dama da ngay muñ ci sa diine borom bi nag ni ñi nga xam ne nii amuñu yaqiin fexeel ba buñ la doyo dal te xamal ne yéeféer yi ñi ngi xeex guddeeg bëccëg ngir yàqu sa diine naafiq yi ñi ngi xeex guddeeg bëccëg ngir yàqu sa diine seytaane mi ngi takku ngir yàqu sa diine waaye loolu lépp yow dëgëral kenn bum tax li nga xam ne lii ndigalu yàlla la boo kenn ci jaamu yàlla yi tax nga di ko moy mi ngi noonu laa yastaxifannaka lazina laa yuqinuun loolu mbokk ku nekk ci ñun war na ko doon di ko gannaayoo donte ne ne danañu fàttali ali ibn abi talib radiyallahu anhu nee nañ dafay jiite ca kaw fa am na ñu dañ tuddee alxawaarij muy natt bu yàlla indi woon ci lislaam ñoo taral seen diine lool demoon nañ ba jàpp ne lu ëpp ci sahaaba yi daanaka ay yéeféer lañu sax ñu jara rey lañu bokkoon na ci lañ gisoon ci ali ibn abi talib bi ali di jiite rek benn ci ñooñu jóg na ko waaw wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takununna min alkhasirin daa ji ne yonent bi da yàlla nee na koon bis boo bokkaale loo jëf dana màbb ca da nga doon ñu perte mu jublu ci gaaruwaale ali ali ibn abi talib dagg fi mu doon jàng daa ji ne fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun muñal li yàlla digge day dëgg la ña nga xam ne amuñu benn yaqiin buñ la na saxal lii mbokk mbir la boo xam ne ñi ngi ñaan ci tëj gi ñuy tëj suratu ruum yal na yàlla boole ñu ci muñ ba tabbi biir aljanna malaaka yi fekk leen fa di leen di leen wax naan salaamun aleykum bi ma sabartum yal na yàlla defal ñu ko defal ko bépp julit